والسقف المرفوع والبخر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتقوا اتبعتهم ذريت ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأس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

muhammad ibn ismail al buxaari alayhi rahmatu wa ridwanul baari ci suñu jotaay bi wees gisoon nañ ci baabu maa yukrahu min as-samari ba'da al-isha ginnaaw bi nga xamante ne gis nañ ci waxtu yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci waxtu yi ak mboolem li nga xamante ne ñoom ñoo ci wërwërloo ak yi nga xam ne ñoom ñoo ci nekk tamit ci li nga xamante ne moom moo aju ci waxtu yi nga xamante ne moom mooy yi ñuy faat te e, ak naka lañ leen di fayee ak nga xam ne lañ leen di toftalee bokk nag ci li nga xamante ne e, loolu mat naa leeral tamit ba tey ci nii nga xam ne noonu lañuy ñuy fayee mooy bu la neexee nga di leen fay tamit bu dee dañoo bari nga di leen fay par tuuti tuuti naka noonu nga di leen fay par benn benn e, saa yoo jullee tamit nga daal di julli beneen ngir fayee ko ak yu demee nekk noonu waaye bu dee loolu na xanaf yee rahmatullah alayhim li nga xam ne moom la ñuy wax. mooy ne da ngay njëkk a fay waxtu wi ba pare doogu julli waxtu bi maanaam doo fay waxtu maanaam ndax toftale ci waxtu lool dafa toftale ci ni ñuy fayee loolu dafa war maanaam loolu dañ koo euh, fàtte woon a masala boobu dañ ko fàtte woon a leeral hmm. bokk na tamit ci li nga xamante ne moom moo mat a leeral mooy ne su ma neexee ma julli waxtu fay waxtu comme ci yeneen mazahib bi maanaam damay julli waxtu fay waxtu julli waxtu fay waxtu wala bokk ma njëkk ko fay doogu julli waxtu loolu yëpp bu la neex nga def ci waaye euh, nga xamante ne tamit dañuy faral di wax tamit ne boo demee ba bu fay juróom ci waxtu wu nekk bés bu ne mooy fay nga lu tollook lu tollook juróomi waxtu ci waxtu wu nekk loolu bu boobaa dañuy daal di xam ne léegi farlu nga te bokkutoo ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi sàggar beneen bi ci des tamit moom mooy waaye nag ba tey terewul rek koy fayee loolu tamit comme loolu tamit euh, beneen atte la ci ci des bi nga xamante ne tamit euh, moom mooy Euh, euh, euh, amaan na am na beneen bu ñëw sama xel léegi waaye dama ko fàtte mais daal ala xaale fay gi moom noonu lay demee bu maanaam damay voilà bokk na ci tamit mooy ne fuqahaa u maaliki rahmatullahi alayhim ñoom dañuy maanaam nit ki nga xamante ne dafay naafi la te fekk am na ay farata yoo xamante ne waragu ko fay maanaam ñoom loolu dañ koo sib comme ni ko ñenn ñu bëri yaakaaree ne amul amul droit bi maanaam dafa bokk rek ci li ñu sib lu tax ngir am na ay mbir yoo xamante ne yooyu da nga ko war a fay ba mu des bu fekkente ne rakkaay maanaam rakkaay rawa kii rakkaay ñaari rakkaay fajar yi la mooy rabibatul fajari ak lu demee nekk witar maanaam loolu moom duggul ci yi ñu sib waaye yi ci des nag dañuy sib ku ko def loolu moom mooy ñaar masala bi ñu wax ne léegi mu ngi woon ci suñu xew waaye daa demoon alhamdulilah borom bi indiwaat na ko subhaanahu wa taala dégg nga kon ah, gisoon nañ tam ci suñ jotaay bi weesu kon gisoon nañu baabu maa yukrahu min as-samari ba'da al-isha bunt bi nga xam ne moom mooy li ñu sub ci gom ngomlaan ginnaaw gee maanaam loolu euh, mooy waxtaan waxtaan mooy waxtaan ginnaaw guddi rek mooy waxtaani guddi rek moom mooy ngom ngomlaan dégg bu euh, dañ koo fàtte woon ci jotaay bi weesu maanaam baat bi dellu si waat na dégg nga euh, bokk na ci liñ ci gisoon mooy xadiisu sayidna abu hurayra abu abu abu barza abu barza al aslami radiyallahu taala bi nga xamante ne moom lañ ko doon laaj ne ko kayfa kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yusallil maktuba ana naka la yenente bi sallallahu alayhi ndawal yàlla li sallallahu alayhi naka la baaxoo woon bi ko jullee julli farata yi mu wax ko ba ca gannaaw ga bi mu yeggee ci wàllu gee mu daan ne wa naw yakrahu nawma qablaha wal xadiisa baadaha nekk nag tamit koo xamante ne dafa si boon di nelaw lu jiitu gee naka noonu di waxtaane ginnaaw gee lool moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullah indi xadis bi fii di ko leeral maanaam ni ba leeral ngom laan maanaam ginnaaw gee maanaam mu daal di indi tamit baabu samari fil fiqhi wal xayri ba'da al-isha maanaam bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ci wàllu ngom laan ci wàllu xam-xamu fiq ak li nga xamante ne moom mooy lépp loo xam dafa nekk mbaalu wàllu yiw ginnaaw gee lool tamit gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna gis ci xadis sayidna anas ibnu malik radiallahu taala an bi nga xamante ne al imam alxasan ibnu yasaar al basari rahimahullahu taala dafa yéexi dañ ko maanaam euh, taalibe mi dañ ko xaar mu xaw a yéex a génn nag ci ñoom waaye ba muy ba mu yegg si jege waxtu wi nga xamante ne comme na xatta qarab naa min waqti qiyaame ba mu jege waxtu wi nga xamante ne ci la daan jóge maanaam ci la daan jóge ngir taxaw maanaam ci la waxee nag ne léegi nag maanaam mooy waxtu Euh, kañ la maanaam euh, waxtu wala bokk ci waxtu taxawal gi ñuy taxawal maanaam ñaari maanaay la maanaam moom mu jóg taxaw dem wala bokk taxawal gi ñuy taxawal waxtu maanaam euh, jotaayu xam-xam bi maanaam mu daal di dikk nag ginnaaw ga nag mu ne mu ne ah suñu mbokk yi nag suñu dëkkandoo yi ñoo ñu woowoon ginnaaw ga nag ci laa laa di leeralee ni Seydina Anas itam radiyallahu taala anhu moom waxoon na ko nekk am na benn guddi bu ñu xaaroon yenente bi sallallahu alayhi wa ba guddi gi di xaaj neena mu daadi wax ne yonente bi salallah ai sallam ba mu jullee ba pare daf le ba noppi dafa leena xutbaal maanaam mu daadi leen di wax ne ala inna annaasa qad sallaw summa raqadu wa innakum lam tazaluu fi salaatin man tazartum sala mu ne li mu ne ala waawee ne nga xamante ne eh, ne nit ñi day li wér mooy ne nit ñi day naka nit ñi de ñoom julli nañu topp nag nelaw neen te yéen nag yéen dañoo leen di nekk ci julli féeg yéen a ngi xaar julli ما لم مدادتي تكني وإن القوم لا يزالون بخير منتظر الخير منتظر الخير من ينك دنيو دنيو دن دينك كيو فيك نيجي خاريو لول مموي الإمام الحسن البصري رحمه الله ويتمت لكم قرة من حمد مموي تعالي بيمتم مموي قرة خالد رحمه الله نينا ديت لول نك وخلا تيب وخمتر سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه موك جلتي ندول يا الله صلى الله عليه وآله وسلم جسون من تمت حديث سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما بما خمنتنا دفني يننت بي صلى الله عليه وسلم دفع جلي دفع جلي جلي جي بيبتي مجنت لك دندم top nak mu daldi noppamu noppi mu daldi taxaw di waxtaan ak sahaba mu ne araaytukum laylatukum haade fa inna ra'sa mi'atin laa yabqa mimman huwa al-yawma ala zahri al-ardi ahadun mu ne gis ngeen seen seen seen guddi gii fii mu toll nag buñ demee ba ca bopp téeméeri at bi mooy ca kanam boobaa kenn dootu fi deseti ci ñu mel ni maanaam ci ñuy nekk ci kaw suuf fii mu toll nii loolu moom mooy la loolu maanaam mooy waxtaan wi nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxtaan te loola ginnaaw gee la te loolu day te kon ci anam gu leer ci ne waxtaan ginnaaw gee nekkul loo xamante ne lu ñu mm, maanaam bu fekkee lu ñu sib la su fekkente ne waxtaan yi dafa aju ci wàllu xam-xam ak ci wàllu li nga xamante ne moom mooy lépp loo xamante ne lu baax la ak yiw la ak manam di saxal lu lépp lo xamne lu la loolu nak mom motax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fi manam di wone ne xam-xam ak li nga xamantene mom moy lépp lo xamantene dafa aju ci di waxtane mbiru julit ñi ak mbir yo xamantene da fay jëmele nit ñi kanam manam lépp lo xamne dal lu bax la loolu mom la ji motax imam al-Bukhari jital buntu bobu ci buntu bi nga xamne mom lañu jëm te ñu war ko gis ci suñu jotaay bi insha allah mu imam al-Bukhari rahimahullahu taala ne baabu samari ma ad-dayfi wal ahl baabu buntu as-samari laan ma bay dayfi ànd ak gan wal ahli ak ñoñi maanaam li la tax nag maanaam wax ji te mënoon na ko dugal ci fi nga xamante ne moom la wax noonu baabu samari fil fiqhi wal xayri ba'dal isha bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ci wàllu ngoom laan ci wàllu xam-xamu fiq wala bokk ci xam-xamu maanaam baatu fiq loolu lu mat a xel ndax ñoom ñu njëkk ña bu ñu waxaan fiq jubluwuñ ci rek xam-xamu nii mais liñ ci jublu moom mooy lépp loo xamante ne xam-xam la buy wër-wër loo ci diine ji maanaam mën naa nekk ci tafsir mën naa nekk aqida maanaam wala tawxiid man maanaam mën naa nekk euh, fiqh ci boppam mën naa nekk xadis mën naa nekk leneen loolu maanaam ñoom loolu lañ ci daan jublu mooy lépp loo xamante ne day maye dégg-dégg day tax nit ki mën a xam diineem mu mbir mi gën a leer ci boppam mu gën a xam lan mooy digganteem ak boroomam subhaanahu wa taala mën na nekk tamit lépp loo xamante ne dafay aju ci diggante boroom bi subhaanahu wa taala ak nit ki te moom mooy xam-xam yi aju ci wàllu suluk moom mooy soobu ci yoonu nitu yàlla yi ak yeneen loolu yëpp dafay daal nekk li nga xamante ne maanaam day daal dugg ci buntu fekk boobu ak yiw ginnaaw gee mu ne ak maanaam gon ngombalaan ci ci wàllu fiq ak yiw ginnaaw gee loolu li tax dugalu ko fii nag maanaam buntu bi mu daal di koy berte ànd ak ne euh, maanaam nekk ak ay gan di leen teral loolu ak nekk ak sa waa njaboot maanaam sa waa kër di waxtaan ak ñoom ak yu mel noonu loolu dafa bokk ci yiw waaye boobaa dafay li tax mu berleen moom mooy ne yee dañoo ëpp doole maanaam xam-xam Ah, dafa ëpp doole que nga nekk rek ay gan nii ak tamit di teral ay gan ak yu noonu loolu moom moo tax mu daal di wala boog nga daal di toog ak say kër sa waa kër loolu moom moo tax mu daal di wax lii daal koy ber mu nekk moom ci jëmmi boppam mu nekk bunt boppam boo xamante ne bokkut yeneen yi loolu benn mbir la ci ñaareel bi ci des moom mooy ne bunt bi comme moom mooy bunt bi nga xamante ne moom mooy bu mujj ci téere bi nga xamante ne moom mooy kitaabu mawaaqiitu salaa imam al Buxaari rahimahullahu taala daf ciy leeral ne maanaam mu mel ne daf lay junj ne ginnaaw nag léegi ba nga xamante ne taxaw nga say taxaw wu julli def nga li nga xamante ne moom nga war a xam xam xam lu nga sa diine ci ginnaaw loolu yépp nag sa mujjantal lii maanaam sa guddi gi lu maanaam nga toog maanaam nga du aay nga nekk ak say gan naka noonu tamit nga am moment boo xamante ne moom ngay nekk ak sa waa kër ci guddi gi loola dafa nekk loo xamante ne tamit ci biir waxtu wi nga war a sàmmonteel ci la bopp ndax dafa am ay àq yoo xamante ne comme ni nga xamante ne noonu la ko yenent bi waxe sallallahu alayhi wa sallam bi ko sayyidina Abu Dhar waxe radiyallahu anhu mu ne wax na dëgg te moom mooy ne da nga am sa bopp dafa am sa bopp sa bopp maanaam sa dafa am àq ah, naka noonu sa yaram dafa am àq maanaam sa borom dafa am ci yow àq sa bopp yow tamit sa bopp naka noonu say waa kër dañoo am ci yow ay àq tamit maanaam te loolu eh, tamit maanaam lu mat a bàyyi xel la maanaam ngay am temps boo xamante ne da nga koy nekk ak ñoom donte ginnaaw gee la loolu moo tax maanaam mu nekk beneen maanaam ne waxtu julli yi ni ngay sàmmonteeg waxtu julli yi noonu nga war a sàmmonteeg waxtu yi nga xamante ne moom ngay am ci xam-xam maanaam mu jël buntu boobu buntu fiq ak yu mel ak lépp lu yiw waxtu wa ngay sàmmonteeg loolu naka noonu itam noonu nga war a wutee tamit waxtu woo xamante ne ngir say gan lañ wala boog sa waa kër lañ loolu tamit benn lenn lu ci nekk mu am waxtu yoo xamante ne moom nga war a am ci mbir moomu mu nekk tamit loo xamante ne beneen eh, muy muy beneen mbir tamit boo xamante ne bu ma ta bàyyi xel la ci ni imam al Buxaari rahimahullahu taala di toftalee mbir yi Euh, ci ne mbir yi tamit kon jaamu yàlla maanaam dafa am waxtu yoo xamantene ngir julli la mu am waxtu yoo xamantene leneen xeetu jaamu yàlla yi si rawatina xam-xam da ko ci war def maanaam ak si kar ak yu demee ne ko noonu jàng alquran ak di wéet ak sa diggante ak sa borom wataala wa taala loolu tamit mu am waxtoom waaye tamit mu am waxtu yi nga xamantene ne moom nga war a def ak sa njaboot loolu tamit mu am waxtoom loolu ak ñi nga xamantene tamit ñoo lay soxla ci nit ñi lu demee nekk say gan ak ñu mel loolu motax imam al bukhari rahimahullahu taala daa dina see buntu bi ngir leral yoy mbir yeb wa insha allah taala wallahu taala alam mun qala bil isnad al muttasil fi awwal kitab li hadathana abu nu'man te al mooy al imaam muhammad ibn al fadl as-sadusi rahimahullahu taala mun al imaam abu nu'man al basri rahimahullahu taala mom di imam tamit ci waa basara dégg nga li nga xam ne comme ni nga xamante ne noonu la ko ñu bare bari euh, tagge euh, ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ci ne ku dëggu woon te jullit la bu sell euh, ñu ko mu gën ñu koy dàkkante la tamit aarim maanaam comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon moom nag mu ngi génn àdduna deux cent vingt-troisième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa waaye nag ñetti at laataa muy génn àdduna dafa jaxasoo maanaam xel mi daa jaxasoo loolu moom moo tax li imam abu xaatim waxoon rahimahullah ni képp koo xamante ne dafa déggee ci moom laataa ñaar fukkeelu at mam ñett téeméer at ak ñaar fukk ci ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme li mu dégg loolu lu baax la comme ñoom imam al buxaari rahmatullahi alayhim waaye képp koo xam ne dafa dégg ginnaaw loola kooku li mu dégg baaxut imam al buxaari rahimahullahu taala soloo na ci moom téeméeri xadis euh, euh, moom rek nag moom moo soloo ci moom waaye wa asxaabu kutubu sitta ñi ci des ñëpp soloo nañu ay xadisam ba mu des imam at-Tirmidhi rahimallahu al-jamii waaye nag imam at-Tirmidhi comme niñ ko waxee woon na ci keneen koo xamante ne tamit Abu Nu'man mooy dàqantalam waaye kooku mi ngi tudd al-Hakam ibnu Abdullah al-Ajli comme niñ ko leerale woon moo siqa la rubbama afta maanaam ku wóor la waaye léeg-léeg day juum moom mu ne qaala xaddathana mu'tamir ibn suleyman te moom mooy al imam abu muhammad mu'tamir ibn suleyman ibn tarxaan at-taymi rahimahullahu taala moom itam waa basara la rahimahullahu taala dañ koy dàqantele ci at-tufayl rahimahullah mi ngi gën mi ngi gën a àdduna cent sixième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn àdduna cent quatre-vingt-septième année ginnaaw gàddaayu yenent bi sallallahu alayhi uh, wa alihi wa sallam uh, kon moom uh, tamit ci siqaatu taabii taabii la bokk rahimahullahu taala li nga xam ne moom la imam az-Zahabi wax ci moom rahimahullah moo ne kaana rasan fi l ilmi wal ibadat ka abihi maanaam moom day ponkal la njiit la woon ci xam-xam ak jaamu yàlla moom comme baayam la mel maanaam loolu Euh, muy aw euh, seede woo xam ne imam az-Zahabi rahimahullahu taala seede na ko ci moom euh, te borom xam-xam yi tamit rahmatullah alayhim loolu la wax comme li imam Sufyan ibn Sa'id ath-Thawri rahimahullahu taala wax ne mu'tamir rajulan mu ne rajulan saalih maanaam maanaam mu ne mu ne rajulun saalih maanaam yaxudu anil maanaam moom day nit la ku sell waaye nag day ci ñépp Euh, loolu maanaam day jëlee ci ñëpp waaye lool li muy tekki mooy mën naa jëlee ku ku wóor comme ci ku wóorut waaye daal ak lu mënti xew moom bu fekkente ne ci ki mu jëlee ku wóor la moom ci jëmmi boppam ku wóor la loolu la wax ji di tekki euh, dégg nga euh, kon moom rahimahullahu taala muy kon imam boo xamante ne li comme li Qurrat ibn Khalid as-Sadusi waxoon rahimahullah te mooy taalibi Seydina Anas bi maanaam maanaam taal bi Xasan al Basri bi rahimahullah wax seydna Xasan al Basri bi mu ne mu'tamir indana du maam mu'tamir du mu indana duuna Souleymane at-Taymi maanaam moom gëntu tuuti mu'tamir gëntu tuuti baayam mooy Souleymane ibnu Tarxaan at-Taymi rahimahullahu rahimallahu al-jamii' mu ne qaala xaddathana abi nee na sama baay nag moo ñu nettali te moom mooy Souleymane ibnu Tarxaan at-Taymi رحمه الله تعالى من أبو المعتمر دوا بصرة رحمه الله تعالى آه، إمام شعبة رحمه الله نينا ما رأيت أحدا أصدق من سليمان التيمين كان إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم تغير لونه موم دفا من موس خمم كان كو خامتيني مو غنا دغو كسليمان التيمي رحمه الله موم صح نيكون نكو خامتيني سوي وقتانه di wax xadiis yenente bi sallallahu alayhi wa sallam da ngay gis yaram bi tàmbalee soppeeku maanaam tellement maanaam ni nga xamante ne noonu la màggale yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te noonu la nekkee koo xamante ne ku ñuy bàyyi xel la moo tax yaxya ibn sayid alqattaan rahimahullahu taala imam bu màgg boobu nee kaana taymi indana mi suleyman ibnu tarxaan at taymi rahimahullah ci ñun te mooy abul mootamit mom day fiñun day a mom day ci wa hadisi la de waye benen seede bi nabit mom danaka gënta tuuti seede bi mu wax ni manam moy bimu ne ma jalastu ila rajulin akhwafu akhwafu lillahi minhu musuma togal nit ko xamantene moko gëna ragal yalla manam lolu subhanallah lolu mom seede la bo xamantene allah seede bu magga ngogo wallahi lolu day lu reey reey reey la rahmatullah alayhim kon lo kon lolu man na danaka man nañu imam ibn hibban rahimahullah taala boole nako ci ñu mag ñi rahmatullah alayhi neena na kaana min ubbaadi ahli basra wa saalihihim siqa wa itqaanan siqatan wa itqaanan wa xifdan wa sunnatan maanaam nekk na koo xamante ne ci jaamukatu yàlla yi gën a maanaam gën a màgg ci waa Basara la nekk ci ñi gën a sell ci ñoom ci wóor gi mu wóor ak ci mën a takk maanaam maanaam rafet ni muy téyee ak ni muy nettalee xadiis yi ak mokkal gi muy mokkal ak tamit ni mu sàmmoonte ak sunna ci ñi ci gën a màgg ci waa Basara ci la bokk rahimahullahu taala imam al-Ijli ne taabi'iyun thiqa wa kaana min xiyaari ahlil Basara maanaam taabii la boo xamante ne ku wóor la ba pare dafa bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi gën ci waa Basara rahmatullahi alayhim naka noonu imam az-Zahabi rahimahullahu taala ne ah, ahadu a'immatul a'lam kenn la ci ponkalu ñi nga xamante ne ñoom ñooy imam yu mag yi waaye mu ne ahadu saadaat sami'a anasan wa aba usman an maanaam Euh, kenn la ci sang yi dégg na Seydina Anas radiyallahu taala ak Abu Osman an-Nahdi rahimahullahu ba pare mu ne manaqibuhu jamma maanaam ay ngëneelam ay jalooreem dafa bari lu bare bare bari la naka noonu la jalooreem yu bare noonu la tamit nekkee koo xamante ne euh, ku màgg la al imam ibnul mubarak rahimahullahu taala mu ne at-Taymi wa ibnu Ulayya mashaayixu ahlil basara lam yasma'u min abil aliya maanaam euh, ñoom ñaar ñi muy at muy Souleymane Abul Mu'tamir mi Souleymane ibnu Tarxaan at-Taymi ak al imam ibnu Ulayya te moom mooy Ismaïl ibnu Ulayya rahimahullah maanaam Ismaïl ibnu Ibrahim la tudd maanaam ko ibnu Ulayya ñoom ñaar ñi ay sëriñ lañ ci waa Basara rahmatullah mais dégge wuñu ci euh, al imam Abul Aliya euh, rahimahullahu taala Sufyaan ibn Sa'iid as-Sawri ne xuffaazul basri yi na salaasa ñi nga xam ne ñooy xuffaaz yi ci waa ahlu basra ñoom ñett lañ mooy Sulaymaan at-Taymi ak Aasim al-Ahwal ak Daawuud ibn Abi Hind mu ne waaye nag wa kaana Aasim ahfazuhum Aasim al-Ahwal rahmatullahi alayhi moo leen gënoon a mën a mokkal waaye nag Sufyaan ibn Sa'iid as-Sawri moom daanul jiital kenn ci kaw Sulaymaan ibn Sulaymaan ibnu taraxaan ak taymi rahimahullahu taala daanul jiital ci kaw kenn ci kaw basara yu kenn te loolu yaxya ibnu asaid al qattaan moom moo ko seede ci moom rahimallahu aljamii moom borom xam-xam seede nañ ci moom ay seede yu mag mu nekk borom gënal gu kawe rahimahullahu taala ay xadiisam ñi ngi ci kutubu sitta hmm. ah, moom mu ne قال من حدثنا أبو عثمان معنى أبو عثمان تمموي آه، آه، عبد الرحمن ابن مل آه، ابن ابن معنى ابن عمرو مع عبد الرحمن ابن مل ابن عمرو نون لتد ابن عدي ابن وهب ان النهدي البصري المعنى كوفي ثم البصري كوفه لو دكون جناكم دك وبصره maanaam abu osman bi mi génn àdduna euh, centième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dund na cent maanaam moom euh, ku gudd walla maanaam ci muammaruuna yi la bokk ndax boo xësee ba dund cent rek léegi daal tàmbale ngaa nekk bokk ci ñu gudd fan dégg nga euh, hmm? dégg nga moom Souleymane at-Taymi bii di taalibeem nag seede na ci moom rahimahullah seede bu rëy nee na kaana laa yusibu zamban kaana layluhu qaiman wa naharuhu saiman wa in kaana la yusalli hatta yughsha alayhi maanaam moom day dafa nekk koo xamante ne da daan julli da daan julli da maanaam moom da da daanul jote ak bàkkaar dara mook bàkkaar duñu am fu ñu mën a jotentee lu tax moom guddi gi yëpp da koy julli gudd bëccëg gi da koy woor te bu booree day sàmmonteeg bàkkaar yi moom euh, moo tax nga gis ne moom daan na julli ba nga xamante ne maanaam li koy tàqaleeg julli gi mooy yëgatu mooy day loolu moo koy fa tàqaleeg julli gi dégg nga moom Abu Osman an-Nahdi bi euh, rahimahullahu taala ci muxadramuna yi la bokk comme ni ko gisee. Eh, maanaam fekk na jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye jotu koo gis eh, rahimahullahu taala eh, fekk na tamit Yarmuk xare Yarmuk maanaam fekk na ko te mooy xare boobu Seydina Abubakar radiyallahu taala anhu jiiti woon ah boobu fekk na ko te aj na ñaari yoon ci jaahiliya ginnaaw ga mu duub dugg ci lislaam ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama Euh, mu nekk kon boroomi mbir yu rëy nekk ku jaamu jaamukatu yàlla bu mag nekk imaam bu wóor rahimahullahu taala euh, rahmatan waasia ay xadiisam ñi ngi ci kutubu sitta mu ne an abdirahman ibnu abi bakar mooy sayidna abdirahman ibnu abu bakar euh, ibnu osman te moom abu bakar radiallahu taala mooy abdullah ibnu abi quhafa abu quhafa moom mooy ibnu osman ibnu amir ibnu amr ibnu said ibnu murra ah ibnu kaab ibnu looy ibnu ghalib muy mbokk yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ibnu taym ibnu taym ibnu murra ibnu said ibnu taym ibnu murra voilà ibnu taym mooy waa banu taym ibnu murra rahimahullahu taala abdurrahman di kon moom di mbokki saydna saydatna Uh, sayyidatuna Aisha radiyallahu taala anha uh, dégg nga moom nag uh, ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay Ummu Rumaan mooy seen yaay Zeynab nag la tuddoon Ummu Rumaan radiyallahu taala anha moom kon fekk na Badar waaye nag ba nekkee Badar yi ci yéefir yi la bokkoon deng motax ci mom la alquran wàcce walladi qala li walidayhi uffil lakuma ata'idaani ni an akhruja wa qad xalat alqurun min qablihi qabli wa huma yastaghithan Allah wa ilaka amin inna wa'da Allah haqq aaya ci mom la wàcce woon ah moy te aaya yooyu nga xamne ci suratul ahqaaf mom la wàcce moy ki wax nga way waaye rom way bas way yi ndax da ngeen may forcer da ngeen may jañ ci ma ma ma nekk dugg ci li Ah, ah, di génn naan damay di génn euh, dëkk bi di dem feneen te man dëkk bi neex ci man ba pare fii ma dëkk ma màkk ah du ma génn déw ma dugg ma ci lislaam déw ma fenn waaw voilà te ñeneen ay ay ay génération ni nii romb nañ ma wahuma yastaxiisaani llaha waylaka amin inna wa'dallahi xaq qaala in haada illa asatirul awwalin moom ñu naan ko waaye ay way la ko yërëm nañ la waay gëmal yàlla li muy digle dëgg la de mu naan ah waaye lii di ay lii bu ñu njëkk ña rek ah voilà ñooñu ak xas ak ak ak ñaññe yi ci borom bi teg subhaanahu ci moom mii la wàccoon waaye nag gannaaw ba dugg na ci lislaam rafetal lislaam maanaam loolu day leeral ne kon loolu tegtalewul ne ku aaya wàcc ci yow maanaam lii day tegtale nag moom mooy sabab bi waaye tegtal waaye gannaaw ba dugg na ci lislaam moo tax moom nee na Seydina Abubakar radiyallahu anhu gis nga bàyyi gis nga pourtant Badar de jekku naa la ay yooni yoon jekku naa la ay yooni yoon waaye bu ma demee ba xam ne rek non sans bàyyi nga naa la bàyyi waaye yeneen mu ne ko ay bu doon man la gis nga bis boobu bu ma la jekkoon damay tàqale sa bopp ak sa baat waaw Seydina Abubakar radiyallahu anhu loolu la ko i bu doon man nag maa la jekku kon waxatuñ ko <laughs> dégg nga moo tax euh, moom euh, fekkee maanaam maanaam ca fat fatxu Makka ci jamonoy fat fatxu Makka ci la doo maanaam wala tuuti avant fatxu Makka ci lay doog dugg ci lislaam ah fekke na nag euh, li nga xam ne moom mooy xarek Yamaama ak mboolem futuux yi nga xamante ne maanaam mooy conquête yi nga xam ne moom la lislaam am yépp ba moom bi muy génn àdduna ne moo tax tamit bokk na ci li nga xamante ne moom la ñu seede ci moom mooy ne nit ku sell la woon Euh, ku ku sell la woon maanaam euh, naka noonu euh, dafa neexoon deret tamit maanaam dafa mënoon a kaf maanaam ku ku ne ku mënoon a kaf la woon tamit loolu tamit bokk na ci liñ ko xamee woon moom mooy nag bokk na tamit moom mooy ak njàmbaareem bi nga xam ne lañ ko xame woon ba pare ku sànni xeej la ñaare bu sànnee xeej du du du luppe bokk na ci liñ ko xamee ba pare moom mooy doomu mooy taawu Seydina Abubakar radiyallahu taala anhu muy saxaaba boobu radiyallahu taala anhuma mi ngi génn àdduna cinquante-troisième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam am nañu ne cinquante-huitième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ay xadiisam ñi ngi ci kutubu sitta mu ne am na asxaaba suffa mu ne waa asxaabu suffa ñooñu nag mooy ñi nga xamante ne ñoom euh, dañ leen ñoo nekkoon ci mbaar ma maanaam ci jàkkee yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa amoon maanaam mbaar moo xamante ne maanaam fi nga xam ne fa la kër ga daan ñoom foofu lañ daan toog loola nag mooy ne ngir ne ku amutoon kër amul fu mu dëkk foofu la daan dem toogi naka noonu dañoo nekkoon ñoo xamante ne tamit ñu ñàkk lañu woon daan nañu léeg-léeg mat 70 daan nañ ko ëpp léeg daan nañ ko néew lu tuuti léeg-léeg bu kenn ki génnee àdduna wala mu tukki wala boog mujj daal di takk soxna am kër ak yu mel bu boobaa ci lay daal di eh, ñu daal di jóge foofa ca mbaar ma waaye daal bu dut loola rek fa lay ne maanaam eh, te ñooñu nag eh, dañ daan bë maanaam daal dañ wàññeeku ngir loolu wala kenn ki faatu ñu daal di wa wàññeeku ngir loola léeg-léeg ñeneen ñëw dab si leen fekk si leen tuub si maanaam wala ñu jóge ci yeneen i dëkk wala yu mel noonu ñëw fekk si leen eh, imam abu nu'aym al asbahani rahimahullahu taala ci xilyatul awliya lim na ci lu ëpp téeméer ci ñoom Euh, wala téeméer rek ñeent fukk jàpp lu maanaam lim bu xaw a jege la wala téeméer rek fanweer jëm en tout cas téeméer kaw rahmatullahi ala radiyallahu taala anhum mu ne ñoom waa asxaabu sufa kaanu nekkoon nañ ñoo xamante ne unaasan ay nit lañ ñoo xamante ne fuqaraaw ñu ñàkk lañ woon wa am na tey nag nekkoon na annabi yenent bi sallallahu alayhi wa qaala nee man képp koo xam ne kaana nekk na fa moom taamu ñamus euh, bis nay ni ñaar fal yadhab na yóbbu na yóbbu waale bi saala seen ci ñetteel maanaam mooy koo xamante ne moom euh, ak seen waa këram ñoom ñaar lañ maanaam moom ak soxnaam ñoo dëkk wala moom ak doomam wala yu mel noonu mu ne yenent bi sallallahu alayhi wax ne maanaam buy dem te fekk li muy lekk ñaar la doy ñaari nit rek la doy te ñoom ñaar kese lañ na dem buy yóbbu buy dem di yóbbaale na jël ci waa asxaabu sufa kenn mu yóbbaale ko ñuy ñett maanaam bu ko defee moom mu mën a lekk foofu dégg nga maanaam loolu la yenent bi daan wax sallallahu alayhi wa sallam wa in su fekkente ne am nañ ñeent fa xaamisun wala maanaam euh, nañu yóbbaale ba muy juróomeel nañu yóbbaale juróomeel aw saadisun wala juróom-benneel maanaam ndax gis nañ ni nit ku ne li maanaam euh, li ma loolu euh, ko lii dafay dëppoog li Seydina Omar defoon radiyallahu taala anhu jamono ji nga xam ne ci la ñàkk gi ndóol gi tare maanaam da daan gis ñi am mu wax leen ne leen yéen képp kenn ci yéen da ngeen dañ leen di na jël kenn ku ñàkk mu indi ko këram mu lekkandoo ak moom maanaam mooy xeetu eh, eh, kii wu partage boobu voilà maanaam eh, mu organiser ko maanaam na ngeen ko yóbbu parce que ba pare nag da ko daan def proportionnellement maanaam bu fekkente ne kër gi juróomi nit a fi ne nañ invité yeneen juróomi nit bu fekkente ne fukki nit a fi ne nañ invité yeneen fukki nit maanaam parce que bu ñu toggee parce que gis na ni kenn du parce que dafa genn wàllu la daan lekk. maanaam nit ki bu lekkee genn wàll la mu daan lekk loolu du ko rey donc euh, au lieu ñuy bàyyi ñenn ñi di dee ak xiif nañ ñenn nañ partagé maanaam ñoom noonu moo nekkoon euh, seen. seen euh, seen doxalin mu ne nag wa anna te ne Ababakar Seydina Aboubacar radiyallahu taala anhu muy Abdullah ibn Usman radiyallahu moom noonu la tuddoon maanaam Abdullah la tuddoon comme yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wala boog comme baay yenent bi comme yenent bi tamit sallallahu alayhi wa sallam mooy Abdullah yenent bi sallallahu alayhi wa sallam maqaamam martabaam mooy Abdullah Seydina Aboubacar radiyallahu anhu comme niñ ko gisee mooy ibn amir ibn said ibn amr ibn said ibn taym ibn murrata ibn kaab ibn looy ibn ghalib radiallahu taala anhu muy sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dégg nga foofu la tase ak yenente bi saa sam ci murra mooy waa banu taymu taym ibn murra dégg nga foofu lañ bokk ak yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom nag sayidna aboubacar radiallahu taala anhu muy xalifa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam borom gënal yu mag yi ak jaloore yu kawe yi daanaka jarul ñuy dellu si waat ci ay mbiram radiyallahu taala ndax ñëpp xam nañ ko mi ngi euh, musnadam mooy 142 xadis yoo xam ne muttafaqun alayhi juróom benn la amma imam al buxaari rahimahullahu taala wéetoo na ci 11 imam muslim wéetoo na ci benn xadis bu sayyidna abubakar radiyallahu taala amma yeneen xadis yi ci des nag ñoom ñi ngi ci yeneen téere xadis yi wallahu taala aalam mu ne Seydina Aboubacar radiyallahu taala anhu jaa dafa dikkee moom bi salaasatin ci ñett maanaam moom daa yóbbu ñett nee na fantalaxa mu daal di dem annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam bi asharatin yóbbaale fukk moom ndax xam ngeen yenente bi moom ak fukki soxna ak juróom-ñeenti soxna yi ñuy fukk moom buy dem yóbbaale fukk moom maanaam moom euh, noonu la yenente bi noonu la def sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. mu ne fa huwa moom kat Seydina Aboubacar radiyallahu maanaam maanaam moom mooy maanaam mooy ana man wa ab ak sama baay wa ummi ak sama ak sama yaay dégg nga mu ne falaa adri ndax xamuma xaala ndax dafa wax ne wamraat yi ak sama soxna wa xaadimun ak koo xamante ne euh, koo xamante ne ku dul liggéey la maanaam abu osman moo sikki sàkk lii xawmuma ndax lii la wa xaadimun tamit mu ne ak maanaam ak sama soxna maanaam mooy soxna sayyidina abdurahman hmm. ibnu abubakar radiallahu taala anhuma mu ne wa xaadimun ak tamit koo xamante ne euh, mbindaan la woon bay na naa bu nekkoon suñu diggante wa bay na bayti Abi Bakar ak diggante kër Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu maanaam mooy lan mooy euh, mbindaan la woon boo xamante ne maanaam mooy ab booy la woon valet booy boo xamante ne dañu daan liggéeyal sama kër maanaam léeg-léeg bu amee yenn tâche yi mu def ko kër ga yi ci des bu demee maanaam mook Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu maanaam ñun ñoo bokk mbindaan mi mm-hmm. maanaam loolu lay tekki Ah, te lii yëpp nag maanaam buñ ko xoolee dañuy gis maanaam ni nga xamante ne loolu moom mooy li jaadu maanaam ci diggante jullit ñi mooy jàppalante googu nga xamante ne moom moo war a am ak dimbalante gi nga xamante ne moom moo war a am mu bañ a nekk rek euh, ñu bañ a nekk rek genre maanaam faale euh, ñoom lu ñu nekk nañ nekk ci yow euh, déedéet maanaam mbir mi daa war a nekk tamit jàppalante te loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li jaadu moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax waa asxaab doon wax ñi ci des eh, saxaaba yi radiyallahu taala anhum ne leen ku am ku am ku nekkee koo xamante ne maanaam nit ki yow benn leen lay doy na nga na maanaam na nga yóbbaale keneen voilà toog am nga sa lekk gaa yow sa sa kebab bi rek nga yor dégg rawatina bu dee mag si takos la moom moom baax na moom moom mën nga koo séddoo waaye bu fekkente ne takos normal la tamit bon boo lekkee genn wàll gi même boo suurul tamit garaawul. maanaam moo tax euh, fii nii yenent bi sallallahu alayhi wasallam daf ni euh, ñamu moo tax daf ni ñamu kenn ñam ñamu ñaar mu ne maanaam dana dana doy yegg fii salaasa voilà taamus na yegg fii salaasa ñamu ñaar dana doy ñett waxul ne dana suur ñett waaye dana doy ñett nag voilà dégg ñamu juróom dana te loolu yàlla da ciy def barke subhaanallah gis nga ñam boo xamante ne euh, maanaam fi mu bu ñu amoon ñetti palaat maanaam ñetti palaat comme ni ko ni ñu koy séddalee ci assiette yi mais ñu boole assiette yi nag léegi mu nekk benn léegi nag ñeenti nit ñëw toog ci maanaam ni ni ñu doon naroon a suuree noonu la ñuy suuree daanaka maanaam barke bi ci yàlla lay def la waaw mais nag nañ tudd yàlla rek nañ tudd yàlla tey lekkee ndeyjoor maanaam bu boobaa insha allah loolu yàlla dana ci def barke ba mu doy jëpp dégg nga ak yu mel noonu dégg loolu nag. Euh, moom la yenente bi sallallahu alayhi wa di jàngale fii maanaam moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kon moom fukk la yóbbaale mu ne wa innate li wër boobu mooy Abaa Bakr radiyallahu taala anhu moom moom dafa reere inda nabi fooy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam la reere summa topp labisa mu daal di sax xaysu foofa nga xamante ne maanaam sulliyat fa lañ jullee al isha u summa topp nag rajaa mu daal di dellu si maanaam loolu moom mooy lan mooy dafa reere kër yenente bi sallallahu alayhi maanaam dafa demoon ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wa reere foofa léegi te ànd ak ne ñoom yóbbaale woon nañ ñoom yóbbaale woon nañ ñett waa kër Seydina Abubakar radiyallahu anhu mais terewut ñu daal di yeneen Seydina Abubakar radiyallahu anhu bàyyi leen fa dem ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wa loolu day wane ñaar bu njëkk bi mooy yeen Seydina Abu Bakar radiyallahu am ni mu fonke woon yenent bi sallallahu laa wa sallam ba nga xamante ne doon daanul xaw a tàqalikoo ak moom loolu mooy benn ñaareel bi ci des moom mooy ne euh, képp koo xamante ne da ngay ànd maanaam mooy ku am gan man nga leen bàyyi kër ga dem bu dee dafa am leneen looy doxe ji maanaam mën nañoo nekk kër ga toog ñu reer foofu ñoom maanaam mën nañoo reer sa gannaaw te loolu daañ ci gën a gis lu gën a leer ci lii di ñëw ndax lii topp ci xissa bi da koy nettali beneen bi ci des nag moom mooy su fekkente ne dafa am lu la téye maanaam lu la téye nit ki maanaam nit ki mën naa wuute jàkka ji comme par exemple ñii seen gan yi ñoo leen téye ba tax moom par exemple demul woon jàkka ja mooy Seydina Abdourahman radiyallahu anhu waaye Seydina Aboubacar ak Yonent naa sax ñoom comme ci kër Yonent bi la ñoom julli nañ ci jàkka ji mm-hmm. ah loolu tamit bokk na ci li li muy li waaye loolu waaye ba tey li doon gën mooy mooy ñoom ñëpp ñu julli ci jàkka ji moo gën waaye lii tamit mën naa ne hmm. su ma topp rajaa mu daal di dellu fa labisa mu daal di sax xattaa betata asha mu daal di reer annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam dafa nekkoon ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye dafa dem sax xaar ba yenente bi reer ba noppi sallallahu alayhi wa sallam fa jaa moom mu daal di dikkee baadama ginnaaw ba nga xam ne mada wiy na minal layli ci guddi gi maasha allah la soob yàlla hmm. maanaam kon loola waxu ko waxul lan la nattu ko waaye daal la soob yàlla daal ci guddi gi romboon na lii nag mooy wane ni kon mën nañoo ne ginnaaw gee ñu toog ak ay gan maanaam nekk ak ñoom comme yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ginnaaw gee la yóbbu la dem reerandoo ak fukki nit ya mu àndaloon dégg nga mu daal di wax la hoo ñeel ko imraatuhu soxnaam bi mu dikkee ah Sayyidat Zaynab mu dikkee mu ne ko wa maa xabasaka waaye ana lan moo la téye an an adyaafika wëllif sa gan yi lu tax ba sa gan yi maanaam boobu léegi sa gan nekk fi lu la téye wëllif sa gan yi aw wala ba xaalat day day fi day fi sa gan rek maanaam da maanaam la maanaam adyaaf adyaafika wala boog day fi ngir de waxoon nañ la ne mudaafa su fekkente ne maanaam lépp lu ñu idaafa maanaam lu ñu askanalee dara su fekkente ne dañ koo def mu nekk maanaam lu buñ ko askanalee dara rek maanaam loola wax loola wax jooja day mën a am même bu dee ci li ñu jëfandikoo lenn la maanaam singulier la day daal di mën a jor attey pluriel ba tey dégg nga loolu moo tax maanaam lii tamit euh, day wane ne ki nga xamante ne moom mooy jigéen ji maanaam mooy nit ki ki fi nekk Eh, maanaam mën nay inquiété maanaam mën na ne mais lu tax lii maanaam mën naa laaj jëkkër ji ne ko mais lu tax lii xewut maanaam loolu war naa man a ne dégg nga loolu benn benn la ñaareel bi ci des moom mooy itam lii day tegtale ne euh, kii teew moom mooy xam ki teewut lu tax maanaam ki teew day xam euh, mbir maanaam mbir yoo xamante ne war nay poser problème par rapport ak ki teewul ki moom am na yu bari yoo xamante ne mën na koo réer mu ne qaala mu ne awama ashaytum maanaam Seydina Abubakar radiyallahu anhu ne awama awa ndax de maa ashaytum da ngeen a réeragul awa ndax de maa ashaytum da ngeen a réeragul qaalat mu ne ko abaw ñoom dañoo bañ xatta te ji abadi nga dikk lii tamit day wane ne kon mënoon nañoo reer ci ginnaawam bu fekkente ne am nañu ndigal maanaam nit ki nekku fi maanaam c'est pas parce que nit ki gan yi ñu ngi fi et que kër gi ñëwagul rek kenn warta reer wala kenn warta añ loolu war naa mën a ne loolu tamit ah, lii da koy tegtale waaye Seydina naa radiyallahu anhu bi mu ne mais lu tax réeragoo leen xanaa da ngeen réeragul ñu mun a leen ah xaaral mu ne abaw ah, ah, ñoom dañ bañ leen de ñoom dañoo lànk xattaa beteta yi anga dikke xat dëgg-dëgg uridu gaaral nañ leen reer fa abaw ñoom ñoo bañ ñoo lànk maanaam fa abaw waaye dañoo lànk maanaam loolu tamit day tegtale ne képp maanaam li li li gën tamit mooy ne nit ki maanaam bañ a reer laataa maanaam maanaam gan reer gan gan warta warta lekk-lekk euh, gi añ añ bi te borom kër gi ñëwagul maanaam loolu tamit euh, maanaam teggin la daal donte du lu war teggin la rek voilà teggin la itam rawatina ndax ngir ne loolu ñoom xam nga lu tax ñu def ko ndax dañoo yaakaaroon ne xëy na lii du doy comme que dañ leen invité parce que déjà ñoom maanaam ñoom dañ leen invité déjà parce que amuñu woon lu ñu lekk léegi ñii lañu ñu toggoon pour ñoom seen bopp ñoom lañ ne leen lañ leen ci xaj xajal donc ñëwee toog lekk ko ba jeex te te te borom kër gi ñëwul borom kër gi bu ñëwee du maanaam loolu maanaam mooy ne euh, loolu tamit sóoraala te loolu day wane saxaaba yi radiyallahu anhu ñu amee woon jikkoy boobu nga ne moo la ñu tudde al comme nu alquran ni mu wa yusiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa te nekk ñoo xamante ne dañ daan ëffal ci seen bopp seen kaw bopp maanaam dañ daan jox euh, loo xamante ne ñoom dañ koo soxla dañ daan jox priorité keneen donte ñoom soxla dañ ko dëgg saxaaba yi radiyallahu anhum dañoo amee woon jikko jooju dégg nga loolu jikko yi yoo yor maanaam loolu jikko yi ku sóobu ci yàlla la te te dëggu ci sóobu gi dégg nga radiyallahu anhu moo tax ansaar yi lañ ñoom noonu lañ leen tagge nee na xaalat xaala mu ne fa zahabat fa zahabtu ma dem ana man faxtabatu ma daal di làqatu maanaam ma maam Seydina Abdurrahman radiyallahu taala anhu nee na ma daal di dem ma daal di làqatu loolu tamit bokk na ci liñ ciy xame ne doom mën nay làqatu baay bi su fekkente ne xam na ni daal def njaaxum maanaam ndax lan ndax moom moo waroon a ñëw toog ñu tii ne leen na eh, bismillah reer maanaam comme papa ji nekku fi waaye comme que defut loola maanaam rôle boobu mu waroon a jouer te loolu day ware ne bu fi bàyyi nekkul doom ji mag moo war a taxaw taxawaayu bàyyi moo war a taxaw ñi ci des tamit taxaw taxawaayu bàyyi loolu tamit bokk na ci liñ ciy jànge moo tax ba mu ñëwee mu ne ko fa xaala mu ne ko yaa xunsur eh yow mi nga xamante ne yaay yaay boroom xel mu ñàkk bi maanaam xunsur mooy day day day day tekki koo xamante ne mooy mooy mooy mooy magum jëmm quoi liñ naan magum jëmm wala hmm. yow magum jëmm mi nga def lii ah loolu lay tekki dal man ko xamante ne xëy na am xelam dafa ñak mo moy won sóor hmm. de nga mu ne fa jaddaa mu daal di koy ñaan akum njoof manam moy ñu dag moy comme genre euh, ndax euh, nga ajdaa wala al jadaxu jadaxu moy ko xamante ne dañoo bakkan bi wala nopi dafa dag wala wala tunji de nga moy njoof rek dañu njoof bakkan bi wala njoof tunji wala manam loolu la ko wax manam li ci nam rek moom mooy ŋàññ ko daal maanaam mu ne ko waaye yow yow daal yaa yaa yaa naa waar nangam nangam wa sabba mu ŋàññ ko maanaam sabba mu sabba mu saaga ko maanaam saaga fii li muy teg maanaam waxoon nañ la ko hmm. wolof li wolof daan saaga ak ñii ci des li ñu daan saaga du benn maanaam li muy tekki rek mooy da koo da koo xas ne ko waroo woon a defalee nii loolu tam bokk na ci liñ ci xamee moom mooy ne bàyyi ak kilifa gi su gisee loo xamante ne jaaduwul daf ko war a leeral daf ko war a wax ci maanaam eh, da ko war a wax njabootam maanaam daf ko daf leen ko war a signifier ni leen lii kat baaxul te lii jaaduwul te lii normalul maanaam lii kat ba pare ba ñu xam ne jaaduwul mu wax leen wax ju ba pare to loolu tamit dafa war a nekk loo xamante ne ni nga leen koy waxee daa war a nekk loo xamante ne day ànd ak wax yu yu leer te mu leer ne lii nga ci jublu ci anam koo xamante ne du ñu dute ci ne kii mbir mii muy wax njor na ko waaye ay waaw jàppale leen ñoom ay dimbali leen ñoom ay ah waaw mais ñu ngi tuub may kii mais loolu doo ko wax koo xamante ne danga ko war a corriger koy corriger da naan ko eh li nga def du nii waroo ko woon def nangam nangam ba mu xam ne lii du nii voilà masalaan tey bu te loolu day am léeg-léeg maanaam te di gis ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ci xew-xew bii bàyyiwul nit ñi rek ku nekk daal di ñibbi dem seen yoon déedéet dana eh yow mii jëlal ñii yow jëlal ñii yow jël maanaam mooy kilifa tamit dafa war di organiser yu mel noonu maanaam xam ne mm, kat ñëpp nii la ñu war a doxale te masalan tey mënuñoo toog masalan tey ci eh, eh, jotaayu diine am ñuy wax feneen di di di di trouble ñu naan leen waaw ñoo ngi tuub de xam naa ngeen jàppale ñu rek ngeen déedéet. dañ leen ne li ngeen di def loolu jaaruwul kenn bu ñuy wax ci waa bu ñuy wax ci yàlla ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñëpp war a noppi kenn warul wax loolu lañ leen war a mu leer quoi bu fekkente ne nag loolu la xam ngeen la buntu baa moom mooy ku mënul buntu baa ngi nee mooy nga xam ne mooy li jaar waaye kon ah, Seydina ah, Abubakar radiyallahu taala ba mu waxee daal mu ne wa mu daal wax ne kulu lek len la hani an hani an moy tatagal la bi ñu ci yok nak manam man na nek manam moy ne dara xewul hani an ñu ngi leen di tatagal man na nek tamit ne la la la zaida manam moy lu ñu yok rek ci wax di pour wax ne vraiment ñu ngi leen di tatagal comme naam la aqsimu bil xunnas la aqsimu bi yawm al qiyamah la aqsimu bi al balad masalan laa zaida maam ma dañ ko ca yokk ngir dëgëral ngir feddale ñu ne non mooy wa genre jarul may waat maa waaye jarutu ko ah wala boog laa li ngeen wax du noonu maanaam laa maanaam mbir mi du woon nii xanii at ñu ngi leen di tatagal lool tamit mën na tekki lool mën na tekki euh, euh, maanaam que ni waaw maanaam mën na mën naa tekki yooyu noonu dégg nga fa qaala mu ne wallahi waat naa ci yàlla ne laa at'amuhu du ma ko mos abadan mukk maanaam Seydina Abubakar radiyallahu anhu ne waat naa ne doon du ma mos bi maanaam mooy lekk leen waat naa ñeen duma ma lekk lii maanaam mooy jaru woon ngeen may xaar teke yu mel noonu mu waat ci yàlla ne du ko lekk lool tamit maanaam loolu day wane ak mbaaxam rek mu ne waymullah waat naa ko ci yàlla ne maa kunna nekkuñu woon naxudu di di di di di jël min luqmatin ah, maanaam ah, maanaam Seydina Abdourahman mooy wax radiyallahu anhu mu ne waymullah waat naa ci yàlla ne maa kunna nekkuñu woon naxudu di jël di tibb min luqmatin ci dànk illaa lu dul rabaa day fulandiku day gën a rëy min asfaliha ci suufam aksara minha lu gën a bari loolu te loolu bi bi Seydina Abubakar radiyallahu anhu ñëwee ba toog loolu la la ma xew loolu tamit day wane karaama wàllu yu yi te karaama Seydina Abubakar radiyallahu anhu lay gën a wane maanaam mooy ne mooy di lekk dara et que ndab li bougé mbir mi day gën di rëy maanaam day gën di fulandiku mais ci suuf lay lay gën di bëri maanaam bu ñu tibbee lekk affaire bi gën a puus ci ci ci kaw ci suuf loolu day wane maanaam euh, ni Seydina Abubakar radiyallahu anhu def. qaala maanaam euh, euh, qaala mu ne yaani mi ngi ci namm ne xattaa mbete shabiu ñu mos maanaam lool la ci namoon du ma ko ñam du ma ko laal fekk maanaam yéen suuroo leen wasaarat mbir ma nag mujj doon ak sara lu ëpp mi ma la nga xam ne kaana sax la nekkoon qabla zaalika lu jiitu ñu koy teg lu jiitu lool maanaam lu jiitu sax ñam ko ñu koy teg affaire bi dafa gën a fulandiku loolu day wane barke bu rëy rëy bi nekk ci euh, ci ci ci ci ci ci séddalante séddalante ay lekk Ah, mu daf may fàttali eh, benn mbokk da eh, moo ma ko nettali bi eh, ne Cheikh Salahuddin radiyallahu anhu da leen a wax ne leen man mës naa bi mu nekkee xale moom comme seen ñoom boroomi alal lañu woon seen papa daf leen a joxoon da leen a maanaam yaayam da daan waajal benn mburu moo xamante ne da ci daan def maanaam yu am solo daal jox ko ngir bu xeetu récréation yooyu bu amee ñu mu kii comme ni xale yi comme ñu bari nañ koy defal xale yi. mais moom bu deen dem comme que da daan kii moom da daan bëgg di séddoo ak ñi ci des ñëpp waaye bu ko demee bu séddooweeg ñeen nit ñi da gis ne mbir mi nam tolloon rek lay continuer maanaam yàlla da ciy def barke ba ñuy nekk ci classe bi dañ ciy lekk te mbir mi day mel ni lu lu bougé wul lu bari maanaam loolu maanaam loolu maanaam loolu mbir la moo xamante ne secret la boo xam ne yàlla da koy def ci ñi yëwén dégg nga maanaam dañuy dañuy dañuy jàpp ne moo tax nit ki day jàpp ne buy joxe day ñàkk fekk buy joxe day gën di am buy def day gën di am te lépp loo xamante ne da ngaa bëgg dootoo ko ñàkkati loolu secret la bu leer ci ci ci ci li mooy loo bëgg dootoo ko ñàkkati rek fexeel ba di ko joxe soo amee ñetti yëre nga joxe benn nga xool da ngay gis da ngay jékki-jékki fukki yi ñëwaat ci lu gaaw sa en plus. voilà secret yaakaar boobu waxoon naa leen ko boo demee ba xaw a ñàkk yor xaalis bi bëreetul ci poche bi yow génneel benn dix euros wala vingt euros nga daal di koy joxe nga daal di xool nga gis léegi affaire bi dellu si waat maanaam day multiplier wu nga génne waat tuuti affaire bi multiplier wu waat ñu wat yàlla noonu lay doxale waaw loolu moom secret la boo xam ne daanaka ku ko xës ba xam moom daanaka daanaka ñàkk dana la jafe waaw ñàkk dana la jafe. maanaam même booy korkoral sax fexeel ba génne lenn rek nga saraxe ko ngir yàlla léegi nga gis affaire bi dellu si waat mooy li yeneen bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam sayyidat Aïcha radiyallahu anha ne ko bi mu ne ko mais lii rek ñu dese amatuñ amuñu lu dul lii mu ne ko déedéet fekk dañoo yàpp la woon mu séddale lépp ba mu des tuuti mu ne ko mais lii rek ñu dese mu ne ko déedéet lépp maanaam yow ñàkkuñu lu dul lii parce que lii bu ñu ko lekkee day jeex li ci des nag maanaam yiwule fa yàlla hmm. bu ñu yàlla dencal dégg nga Ah, waaw dégg nga mu ne fa nazara mu daal di xool ilayha ci moom aboubacar radiallahu taala seydina aboubacar radiallahu fa isa fekk ne hiya ndab la kama ma nga nekkoon hiya nam meloon rek ak sar mu gën a bëri min ha ci lii fa qaala mu wax limratihi ñeel soxnaam si ne ko yaa uxta bani firasin e eh, yow doomi yow mbokki bani maanaam mooy yow ñi bokk ci doomu ba ci ban mbax ndax ñoom maanaam eh, banu firas lañ maanaam ñoom ñooy nja maam ñi mbokk moom famille bi mbokk mu ne ko maa haada lii lu mu doon xaalat mu ne ko laa maanaam du dara maanaam comme fii tamit moom laa boobu tamit comme dañuy wax zaida la wala du dara wa qurrati ayni maanaam waat naa ko ci maanaam loolu mooy eh, seddu bët mooy comme bu ñu naan aqarrallahu aynaka yàlla na yàlla seral say bët maanaam mooy yàlla yàlla feral say nekk say rangoñ voilà wala boog qurratu ayni mooy loolu mooy loo xam ne day seddu bët mooy day day day day comme bu ñu naan ah kooku de moom vraiment man ba man Eh, sama doom ji daal bi mag bi bu léegi daal sama rangoñ tu fer na maanaam li muy tekki rek mooy gis naa ci moom lu ma kontaan loolu lay tekki maanaam wolof day wax seddu xol wala feru rangoñ wala mel noonu qurratu mooy loolu mooy seddu xol wala seddu bët maanaam fii lii tamit mooy ne euh, lii mooy du du waat yi nga xamante ne mooy dañuy waat waat yu sérieux yooyu mooy comme comme comme comme rek euh, sama tëraayul ban may mooy xeet yooyu rek sama sama sama sama bopp doom xeet yooyu loolu la daal hmm. mais nag loolu kenn du ko waatee ci lu sérieux maanaam dañ koy wax nii rek comme comme par exemple wolof yi ni mu la ne yàlla na nga dee hmm. maanaam fekk jubluwu ci lu lu ñaw daal maanaam da wax noonu rek dégg nga mu ne la lii giñ naa ni nii lii léegi ak aana tey jii ak sara ak saru moo gën a bëri fi mu toll min xaa ci man qabla zalika ci la jiitu woon bi salaasu marratin ci ñetti yoon maanaam ñam bii ni mu toll nii lii ñetti yoon biñ ko bi laataa ñuy tàmbalee lekk laataa ñuy tàmbalee lekk fi mu toll lii mbir mi gën naa bëri ñetti yoon mu ne fa akala mu daal di lekk Seydina Aboubacar radiyallahu min ha moom ci mbir ma Aboubacar Seydina Aboubacar radiyallahu doog tàmbalee lekk wa qaala mu ne innamaa li am ba des mooy kaana nekkoon na zaalika lële mooy waat ga mu waatoon ne du ma ñam ci mbir mi du ma ci lekk. mina seytaane ci seytaane la jóge yaani maanaam mi ngi ci namoon yamiinahu waatam ba su nag akala mu lekk min xayaa ci moom loqmatan ab danq su ma topp mu daal di jëlaat ñam yóbbu ko ila nabi jëm ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom Seydina am ci yenente bi la jëm sallallahu alayhi bu jafee-jafe la te moom rekk ko jago radiyallahu anhu Seydina Omar radiyallahu anhu moom li muy màgg màgg genn wàllu alalam la Seydina Aboubacar radiyallahu moo tax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wane ni Seydina Aboubacar radiyallahu moom secret bi ne ci moom ak màgg ji mu màgg te keneen dabu ko keneen fekk ko ci keneen jegewu ko ci loolu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi koy leeral ci événement boobu bokk rek ci fi mu ko leeral la mooy ba mu ñëwee euh, Yonent Seydina Omar radiyallahu anhu indi genn wàllu alalam mu ne loo leen bàyyee mu ne genn wàllu alal la loo bàyyee sa njaboot mu ko sama genn wàllu alal Seydina Abubakar radiyallahu anhu bi mu ñëwee alal gi yëpp la indi lépp lépp bawul dara bi mu ñëwee indi ko teg ko yeneen bi saa sam ne ko loo leen bàyyal mu ne yàlla ak yeneen laa leen bàyyal sallallahu alayhi wasallam waxul subhaanallah waxul ne ne yàlla déedéet ak yeneen taam bi moom laa leen bàyyal sallallahu alayhi wasallam maanaam loolu mooy lan mooy su mooy nu moom su amoon lu mu joxewaat sax yeneen bi saa sam su ne woon waaw baax na waaye nag jëlal yi nga yóbbu sa njaboot dootul nekk di moom Seydina Bokar moo leen ko jox waaye yeneen bi moo leen ko jox walla salaam waaye ngir won nit ñi ne leen Seydina Bokar radiyallahu anhu nii mu mel xaal la bu mu wéetoo ci man te nii la mel te dafa dëggu ci moom joxaatu ko dara alors que ko Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu ba mu ko defee daf koo joxaat alal ji ba mu ñëwee indi alal yépp daf koo joxaat mais Seydina Abubakar parce que xam na ne. munul mel comme Seydina Abubakar radiyallahu anhu maanaam jox lépp yenente bi noonu sallallahu alayhi wa après njaboot gi moom ak njaboot gi yëpp mu am dara dara bàyyi fa dara lu dul yàlla ak yenente bi sallallahu alayhi doon feeñal ci xew-xew boobu noonu dégg euh, mu ne fa asbahat mu daal di mujj nekk nag ñam ba mujj nekk indahu fa yenente bi sallallahu alayhi wa mm-hmm. mu ne wakaana nekkoon na nag bay na naa suñu diggante wa bay na xawmin ak diggante aw nit àq doon ak kóllëre mu mm-hmm. nee na fa mada mu ah, mm-hmm. mu daal di ñuy tàqale isna ashara rajulan fukki góor ak ñaar maanaam mu mu tàq lañu maa kulli rajulin maa ànd ak kulli rajulin bépp waaye minhum ci ñoom unaasun ay nit allah buur yàlla alam moo xam ne kam ñaata maa moo ànd ak kulli rajulin bépp waaye maanaam bu yenent bi salaa salaam dafa jël nit ñi fukk xaajale leen ci fukki fukki nit ak ñaar voilà ñi nga xam ne ñoom ñooy mooy waa ahlu suufa ñooñu Euh, fa akalu ñoom ñuy lekk min ha ci ñooñu ajma'una mboolem seen aw wala boog kama ne nii la waxe maanaam mooy wóoru ko ne loolu la wax moo tax maanaam Abu Osman moo sikki sàkka radiyallahu ta'ala anhu euh, kon xadis bi mooy xadis bi mujj ci di wax ci wàllu euh, te te te te wàllu waxtu yi te kon mooy leeral ne maanaam ginnaaw maanaam ne tamit nja maanaam sa gan yeeg sa njaboot dama am tamit waxtu woo leen war jagleel loolu tamit euh, hadis bi bokk na ci li ko li muy tegtale bokk na ci li hadis bi tamit di euh, tegtale euh, wala boog li tax imam albouxaari rahimahullahu taala mujjee koo indi tamit di wone ngëniir gi nekk ci sàmmonteeg waxtu maanaam ba indaale ci karaamay ñi nga xamante ne moom mooy sayidna abacar radiallahu taala anhu ak it li ñu jotoon a wax maanaam ne ci bunt bi bi ñu wax ne lii moo tax mu indi Euh, buntu bu nekk maanaam ñett buntu yi ginnaaw maanaam ni mu leen toftalee moom la ñu wax ci njaal benn bi ñuy euh, tàmbali xadis bi imam al-Bukhari dina ko indiwaat xadis numéro trois mille cinq cent quatre vingt ko indi xadis numéro trois mille non xadis numéro deux mille cinquante-sept imam Ahmad ibn Hanbal dina cent douze ak mille sept cent treize kon dañuy gis ne euh, maanaam waa saxeex yi ñoom ñoo indi xadis bi waaye waa sunani ñoom indi woñu xadis bi ci jeexital bi kon li mom moy hadith bi mujju ci hadithu euh ci kitab mawaqitu salat moy 602e hadith euh imam al hafiz ibn Hajar rahimahullahu taala bi mi jeexal ci sa ci mune euh hadith bi mune ne téere bi moy kitab mawaqit dafa am temere hadith ak fukku ak ak djuroom naar ci hadith xadis amma xadis muallaq yi ci yooyu yëpp euh, fanweeri xadis la ak juróom benn yi ci des yëpp dañoo jokkaloo euh, li nga xamante ne mooy li ci nekk maanaam li nga xamante ne mooy li fi ñëw te ñëwaatul woon feneen moom mooy quarante mooy mooy quarante huit xadis ñeent fukki xadis ak juróom-ñett li ci baamu te baamu ci yu jiitu yi mooy soixante neuf xadis imaam muslim dëppoo na ak imaam al ci mbooleem xadis yi fi nekk ba mu des fukki xadis ak ñett te moom mooy xadis sayidna anas bi muy wax ci euh, sujóot bi sujóot yi ci euh, as-sujuudu ala zahairi maanaam yi ñuy sujóot ci kaw mbir yi euh, te imaam al buxaari génn na maanaa bi ak xadis bi wax naan maa aarifu shay'an xadis bi tàmbalee boobu ak xadis bi nga xamante ne Euh, mi ngi ci maanaam bi mu naan haadihi salaat qad diyaat bi mu naan julli gi yéen a ngi nii neenal ngeen ko mooy bi muy ngàññ gaa ak xadiisu bu euh, Seydina Ibnu Umar bi radiyallaahu anhu bi mu naan abridu na ngeen seral maanaam seral leen ci tis tis tisbaar ak xadiis Seydina euh, bi radiyallaahu wax ne innamaa baqaa'ukum maa salafa moom mooy xadiis bi wax ñaari xadiis yooyu te muy wax naan waa waa ñu njëkk ñi dañ leen ñëw indi loo leen Eh, jullit maanaam liggéey loo leen liggéey loo leen eh, ba tisbaar bi et cetera ñuy ba takkusaan boobu noonu ak xadis sayyidina Abu Musa al-Ash'ari bi radiyallahu te bi mu eh, misaalu jullit ñi ak yahuud yi mooy bi ci tegu rek juste ak xadis masalu muslimin wal yahud ak xadis sayyidina Anas bi mu naan kunna nusalli al-asr mooy bi mu naan ñu leen daan julli takkusaan fekk nag maanaam xadis boobu mais ñoom ñaar te dëppoo nañ ci cosaan bi waaye xadis sayyidina Abdullah ibn Mughaffal bi tamit ci la bokk mooy bi mu naan laa yaghlibannakumul a'raab mooy bi mu naan ci bi mu naan bi mu muy wax ci affaire atama ne bu leen ko jullee bu leen ko tuddee gée timis bi boobu bu leen ko tuddee timis ak xadis Seydina Ibn Abbaas radiyallaahu naan naan alaa ummatii moom mooy ne mooy de lii fii nii julli bi waxtu wii la mooy julli gée bi ak xadis Seydina Saalim ibn Sa'd ibn Sa'iid fi mu naan da daan xëdd ak Yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam ak bi muy wax ci ci ñaar rakkaay ginnaaw tàkkusaan radiyallahu taala an bi muy wax ci ginnaaw tàkkusaan ak xadis Seydina Abu Qatada bi radiyallahu taala an ci bi muy wax ci nelaw eh, wala suba gi maanaam mooy bi ñu jullee bi ñu bi ñu bi ñu biddantee mooy te Seydina Bilaal waroon nenee radiyallahu anhu ak eh, waaye eh, Seydina mus waaye imaam Muslim rahimahullahu génnee na cosaanu xadis bi ci beneen wàll waaye nag dafa leeral mu ne waaye ñu moom leeraloon na ci sara bi neen ñoom ñaar ñaari hadis la yu wuute ci ñaari xissa yu wuute mais dégg nga mu ne wallahu alam euh, mu ne waaye am nga xam ne moom mooy ci asaar moo ku fay mooy nga xam ne dañoo yem ci ay sahaba ci ay sahaba wala ci taabi ci taabi moom ñetti asaar rek la euh, wallahu subhanahu wa taala alam euh, kon lii nii moom mooy kon mawaqit li ji aju moom mooy ne kon nit ki war nay sàmmonte ak maanaam ci jaamu yàlla bi ci lépp boo xoolee imaam bu Buxaari ni mu ko mujjale mooy ne nit ki temps ci boppam la war a sàmmonteel maanaam la war a jox gëdd te euh, nit moom mooy dañuy wax ne euh, a suufi ibnu zamanihi wala ibnu waqtihi euh, dëgg ki suufi dëgg ki sell mooy ki nga xam ne doomu waxtoom la maanaam mooy ne jamono ju nekk dafa am lu ca war jamono ju nekk dafa am lu ñu ca war a doxale jamono ju nekk Euh, jaamu yàlla yi nga xamante ne moom lañ ci war a yóbbu jamono yu nekk dafa am ay xàq yu la yàlla amal ci ci jamono jooja am yoo ko amee ci jamono jooja euh, maanaam euh, jamono ju nekk dafa am ay yitte yoo xam ne maanaam nit ki dafa war di sàmmonteeg jamonoom ba nga xamante ne ndax waxtuy julli yi boo gisee ñu koy wax mooy am solo gi mu am solo mooy ne da nga war a organiser sa dund ci lépp ba nga xamante ne julli yi boo boo réussir yi organiser sa julli noonu ngay mën a organiser sa yeneen xeetu jaamu yàlla yi naka noonu bu fekkente ne neenal nga ko nag yeneen yi noonu nga koy mën a neenale naka noonu tamit julli euh, euh, ci nit ki nga xam ne dafay sóobu ci yoonu yàlla tamit dafa war a sàmmonteeg jamono ji maanaam temps bi mu bañ koo passé ci ay seetaan film ay seetaan théâtre ay ay sketch ay ay foo ay yu mel nga xamante ne euh, ay seetaani ay dem seetaani ji match ay xeet yoo xamante ne maam yëpp ay perte temps la maanaam mu concentré wu ci ne temps wam léeg-léeg sax mu jaral mu am temps boo xamante ne ngir boppam la maanaam day toog wéet ngir di xalaat yàlla ngir di tudd yàlla ngir di sikar mu wut tamit temps boo xamante ne ngir sàkku xam-xam la parce que sàkku xam-xam dafa nekk loo xam dafa ràññeeku ci képp kuy sóobu ci yoonu yàlla maanaam loolu loolu noonu moo tax ni waxtu julli yi nag julli nag. mooy ni dajale lépp comme que julli moo dajale lépp ndax julli bala nga ko def da nga xam-xam julli boo koy def da nga si karaale da nga tudd yàlla da nga moo tax waxtu julli mat a bàyyi xel beneen bi ci maanaam waxtu yi nga ne moom lañ doon yi ñu doon traité maanaam ne li faat li nga xam xamante ne romb na nangam nangam dañ ko war a rattrapé loolu tamit nit ki daf cee war a jàngee ne addunaam lépp lu ko ci rëcc bu mu jàpp ne rëcc na ko à jamais feeg mi ngi bakkanam dara rëcc ku la te fu nit mën a yegg man nga fa yegg maanaam tàmbalil nga jël ne tey damay fas yéene dem sama yoon te fas naa yéene laxas damay dem ku dem danaa dem ku demul danaa dem nga gëm ko te nga wiiru ci yàlla nga jël sa wasila def ko yenn ci yàlla muhammad sallallahu alayhi nga teg ko ci sa kanam ak maanaam képp ku la mën a jàppale ci yoon woowa maanaam insha allahu taala ku dem di nga dem ku demul it yow da dem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 Mhm. Mhm. Est-ce que dans ce cas-là, c'est aussi possible euh, si par exemple on, se rappelle qu'on s'est trompé Par exemple, euh, là, parce que là dans ma salle, on a fait à chaque fois l'exemple, on se rappelle qu'on avait oublié faire la prière. est-ce mhm. que c'est le même atout si on se dit Ah, je me rappelle que dans cette prière, j'avais oublié le exemple. D'accord. waaw bismillah alhamdulilah wasalatu wasalaamu ala rasulillah wa ala bu fekkente ne dama war a julli may fàttaliku ne euh, julli sàngam euh, julli woon naa ko waaye nag masalan sujjóotuma woon ñaari sujjóot ci ràkkaa sàngam comme que dafa yàgg day daal di yàqu kon mooy julli googu yàqu na te julli googu yàqu day daal di war ma koy def loolu moom mook ma fàttaliku woon ne julleegu ma woon ñooyam képp wallahu taala alam bu fekkente ne nag dafa nekk loo xamante ne du farata maanaam la ma rëcc du ponk ci biir julli bi bu boobaa comme par exemple tari wu ma ci kaw comme par exemple euh, fàtte naa tari saar wala yu mel noonu ci rakka bu njëkk bi wala yu mel noonu xeet yooyu loolu moom après loolu garaawul loolu doo doo doo doo da ngay continuer rek bu fekkente ne lu waroon moom lu lu waroon a tax ma sujjóot la sujjóotu euh, sujjóot la bu boobaa bu ma jullee ba pare laay sujjóot ba ada salaam ngir réparer loolu moom mooy li jaaru amma fuqaha u maliki yi am na ci ñoom ñu bëri rahmatullah alayhim ñoo xam ne jàpp nañ ne fuqaha ah, bu sujjóot bu dee qabla salaam nga waroon a sujjóot bu boobaa bu yàggee day yàqu waaye xaqiqatan ah, comme que ñoom ñaari ay sunna rek lañ maanaam li nga xam ne mooy li gën a dëgër insha allah mooy ne sujjóot bi même bu dee baada salaam bu dee qabla salaam laa ko waroon def sax te defuma ko ma fàtte ko ne damay der rek def sama baada salaam wallahu taala

du julli ci xelam de médecin buy opéré day julli ci day wax bu waree tari faatiha ak saar da koy tari ci kaw c'est que li mu mënta def mooy mouvement yi mu mënta def comme ay sujjóot xam nga mënu ko rokoo sax tout dépend parce que rokoo bi bu sëggee maanaam jël loxo bi teg ci oom yi nekku ci li ci war kon moom mën bu dee mën naa sëgg day daal di sëgg mais su fekkee te ne mënta sëgg tamit ndax fii auteur fi ñu teg kii bi fi moo ne mu war a intervenir day daan def mouvement rek bu koy tegtale maanaam li muy tekki daal mooy day def li mu man li mu manul mu bàyyi ko loolu lay tekki. déedéet du ko refaat. waaw waxoon nañ la ko nee nañ la euh, yonent bi sallallahu alayhi wa dafa waxoon euh, Seydina euh, Imran ibn Husayn radiyallahu taala ne ko. salli qaaiman fa in lam tastati fa qaaidan wa in lam tastati fa ala loolu xadis la bu nekk sax imaamul Buxaari dinañ ko gis insha allah mu ne na nga julli nga taxaw soo ko mënul nga soo ko mënul nga loolu mooy wane ni kon li nga mën ngay def te alquran moo ne fattaqullaha mastataatum na ngeen ragal li ngeen man nag li muy tekk mooy ragal yàlla mooy def li la yàlla digal bàyyi lim la te rek te nga teg ko ci leer gu tukkee ci yàlla maanaam mooy alquran ak sunna te mu tegu tamit ci xam maanaam ci si dëggu ci ni nga jubloo ci yàlla loolu nag bu fekkente ne mbir mi noonu la demee kon bu ma yàlla digalee ma julli nam ma ko digalee noonu laa ko war a defee waaye sama kéem kàttan bu fekkente ne mën naa mën naa record ak su sujjóot ma def ko su ma ko mënul ma def li ma man loolu mooy dalil bi wallahu taala alam euh, dans le euh, Mhm. Mais du coup, là, on, suppose qu'il y a tous les autres personnes qui n'avaient pas trouvé Tarosan. Waouh, mieux mieux quoi. Euh, mais du coup, ça, je comprends pas comment on met en parallèle avec les hadiths qu'on a vus avant qui disent qu'on ne fait pas Tarosan, à une petite nos des actions. Au final, euh, au final sur là il aurait pu venir euh, en contre-argument. Non, non, non, non, non, non. Parce que lui, ñoo ñoom moo tax ñoom dañoo préoccupé dañ ko fàtte ñoom julli gi dañ leen mbir mi dañoo nekkoon tellement ci affaire yi maanaam ci di préoccupé wu ci xeex bi ba nga xam ne dañoo fàtte woon ne julli jot na moo tax Seydina Omar radiyallahu anhu ne man xaw ma sax ne na ma maa kut kittu usalli usalli al asra hatta kaanat shamsu taxlu fa woon sax di di di julli gi maanaam jegewuma woon sax di julli tàkkusaan ba jant bi di xaw a so maanaam ci jamono jooju lay ci lay doog a rendre compte ne julleegul tàkkusaan ndax waxtu wi dafa gaaw maanaam ki fàtte nag kooku amul bàkkaar looloo tax indi woon nañu xadis sayyidina Anas radiyallahu anhu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne laysa lay laysa tafriitu fi nawm innama tafriitu fi yaqaza mais ak ak sàggante nekkul ci nelaw ci ci nelaw waaye mi ngi ci yeewoo maa te te nelaw moo fàtte ñun roog loolu moo tax euh, te lii tamit moo tax borom moo yu wute ndax dañ ko folli wala folli ko Euh, comme ni nga xam ne noonu lañ ko leerale woon ci jotaay yi ci tegu ne euh, comme Hanafi rahmatullah jàpp nañ ni folliwuñ ko tout dépend ci circonstance bu demee noonu ba nga xamante ne nit ki dafay fàtte lépp carrément maanaam du mën te loolu moo tax ñi ci des loolu lañ koy wax loolu lañ leen di wax moo dañ naan leen yéeg mais yow cas bi ngeen présenté ne nit ki day dem ba talul dara dara dara dara du mën a julli ngir nde xelam sax du ci ne mais kooku moom ak ki fàtte ñoo nuroo

li not ci sama njort mooy ne mooy ne lépp mat na loolu moom li ma leer ñoo nuroo ci ay atte maanaam tey euh, euh, bu ma bu ma comme tey par exemple euh, bu ma njortee ne jant bi sona parce que heure bi jot na ne galabatu zanne moo ne moo fi ne wóoruguma parce que xaw ma exactement ban heure lay so mais gis naa ne li gis ci biti li may tegtale mooy ne njort mooy jant bi sona boobaa damay dox bu jant bi génnaatoon dara du ma parce que xalabatu zanni kal muhaqqaq li ma li noot sama njort moom li ma wóor ñooyam comme ni mu dalee woon yéen sa sa euh, jamono nit ñi jamono ci bopp sallallahu alayhi wasallam jant bi dugg jekki-jekki ñu foog ne dafa dugg ñu jekki-jekki dama génn la fekk gaa yi doog ba pare mais dara waru leen wallahu taala alam bu demee ba noot sa njort daal noot sa njort mooy que Euh, que, que, que, voilà, forte présomption, voilà, forte présomption. Mhm. Euh, après, euh, pour les cinq temps où c'est déconseillé de prier ou interdit en fonction des mazas, mhm. pour le lever du soleil, on a dit c'était 20 minutes après que le soleil se soit levé. Mhm c'est un repère, et par contre, le repère pour le coucher du soleil. amul repère coucher du soleil mooy bu xonkee ba nga commencé koo gis muy dugg euh, su jant bi dafay romb day def nii romb soo jékki-jékki gis ko muy def nii di dugg bi yenn partie di effacé wu mooy mi dugg léegi. mais c'est je veux dire c'est combien de temps entre euh, l'appel de la prière et le. non non non non bu duggee rek. bu duggee àllay nit boo ko xoolee mu dugg dugg dugg duggu ba jékki-jékki dugg yu xonq yi rek des ci kat ci kanam ak yu weex yi à l'horizon jeex na voilà jusqu'à jusqu'à heure boobu la mooy heure bi nit ñi di dogu tam maanaam heure boobu lañ teree mu dugg avant juste avant ñuy julli avant ñuy nodd parce que il faut que loolu am muy ñuy doog a nodd mënuñu nit ñi non amul non mais parce qu'en fait comme c'est moi c'était plus par rapport aux deux qu'on fait entre le. Waouh, waouh, waouh, deux rakas yi moment boobu lañ ko mën a def waaw bu ba dugg rek eux ils font l'appel de la prière. waaw. après le moment qui intervient. voilà juste voilà juste après le moment. Juste après le moment. Donc l'heure de, dans les calendriers, l'heure qu'on a le coucher du soleil, cest mhm. cette heure-là, elle est après le moment, la période qui est déconseillée, elle est avant. voilà, voilà, voilà, c'est ça. Elle est avant. Voilà. Mais du coup, elle est incluse dans... Parce que comme on a donné 5 temps, et un des temps, c'est entre personne et... Non, non, non, xaaral xaaral heure timis moi bu jant bi duggee ba pare moom je naan la timis jotna. Mm. du moment bi jant bi di dugg lañ naan la timis jotna. jant bi nga xamante ne moom moment bi nga xam ne jant bi dugg na ba pare xoolal nuage yi su ne niir yi bu nekkee ni kii bi euh, l'horizon su nekkee ni jant bi jékki-jékki rouge après day jékki-jékki nga gis ko muy dugg yow gisatoo ko muy dugg nii donc partie bii ci suuf nii dootoo ko gisati muy dugg di dugg bu duggee ba def nii jeex na heure boobu la ñuy nodd heure boobu nga mën a naafil pour ñuy wax ne mën na ne quoi le moment Je sais pas compris alors le moment. Mais le moment, c'est le moment où le soleil est en train de coucher. Ah voilà, mais donc c'est ça que je veux dire. En fait, ce que je voulais dire. De se coucher plutôt. Voilà, et bien ce que je voulais dire, c'est que ce moment-là, il est inclus dans le moment entre ta personne et Timis. Il est juste inclus, quoi. mais non moment boobu ba tey ñu ngi jéem waxtu tàkkusaan bi jeexagul waxtu takusan bi jeexagul heure boobu bo jullee takusan ba bala lolu jeex sa julli julli nga takusan heure so amee ben rakka avant jant bi def carrément am nga peut-être la question n'est pas claire en fait quand on dit que entre et timis bon en fonction des mazal il est déconseillé de prier ça c'est une période donnée. D'accord. Donc cette période, elle va bien de Takusan jusqu'à Timis. Voilà. Mais donc le moment, et après on a dit qu'il y a cinq moments, un des cinq moments, c'est aussi, on a dit, le coucher du soleil. Cette période-là, elle est incluse entre Takusan et Timis. Je veux dire, wow. finalement... non, tu Takusan, la bokk ça voilà, donc il n'y a que 4 pas en fait. Les labourements. Non, non, non. 5 là. voilà moment bi jant bi di c'est un point fixe. Hein, hein? c'est un point voilà voilà c'est un moment aussi donné. Hum. Bon, xamante internet ça ne dure pas deux minutes. parce que day gaaw danaan nii moment boobu rek lañ la wax moom moom nañ ne la boobu dafa gën a garaw boobu lañ la wax ne la ñu bëri dañ ne dafa xaraam yeneen yi des comme Maliki yi ñoom moment yi ci dañ ne dañ ko sib kese moment boobu rek dañ ne la dafa xaraam te Hanafiya dañ ne la même moment boobu yow boo boo doon fay julli mën nga ko fay ci yeneen moment yëpp mais boo yeggsee ci moment boobu jant bi di commencé dugg moment boobu dañ la koy tere léegi ba keroog mu dugg carrément bu xësee ba dugg carrément mën nga julli sa julli manam importance moment yi rek moy différence bi jeex na dafa amoon nañu. waaw par rapport ak exemple bi ñu joxe woon sànq. mais ku doon ko par exemple ba gis jant bi dugg. nga dok après mu génnaat. waaw. dama xawul comprendre boobu bu ñu bu ñu jëlee am na beneen bu doon benen ki règle ci ko yaakaar naa bu doon kenn du baye xel. Kan. kii boo xam ne. Euh, laa waaw bi zannil bàyyi mais c'est parce que lii euh, da ngay ko moo tax da ngay continuer di woor looloo tax da ngay continuer di woor maanaam moo tax ñoom dañoo continuer bi ñu gisee jant bi jógaat rek parce que niir moo leen ko nëbboon maanaam ndekete duggutoon niir la leen ko nëbboon moo tax dañoo continuer mais après fay ñu bis bi maanaam kooku moo ki ki ki ki lekk te juum moo ñooyam loolu moom moo tax mais sinon effectivement du ñu bàyyi xel maanaam mënoo ne rek comme dog naa ba pare te léegi kon naa continuer dog indi leen yi indi leen nangam déedéet <laughs> voilà <laughs> mënoo ko wax voilà wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain